Ah, jërëjëf Paul kontaan naa trop ah, pour ngeen ñëw fii suñu training ground ah, tey am nañ test game against benn team si Sénégal school fu nekk nekk Gambie gars yi dañuy door 2-0 su ko ne ñaari góol amuñ dara waaye game bi baaxoon na trop. Euh, comme ñun ñëwuñ fii pour am ndam si ñooñu because ah, ñooñu team lañ ba pare ñun nekkuñ team ñun dañ ñëw rek boo ko play ak suñ naag tàngoo yi ñu nekk Sénégal so game boobu lañ nekk di préparé ni euh, euh, only 19 la ñu play mooy Friday buy ñëw ni waa ko. waaw préparation bi daanaka mut na soo ko xoolee tey moo nekkoon last day bi gisal ngeen ko seen bopp ah, am nañ couple of test games yoo xamante ne play woon nañ ko win yëpp foog naa tey leen doog a ñaaka ah, te dafa am lu tax ñu dugal test game bi nii parce que soo ko xoolee ñu nag school team école lycée Sénégal yi la bu nekk fii nii maanaam most of them Sénégalais Sénégalais Gambien lañ oo Sénégambien lañ mën a wax te jikko yi dina nekk benn xëy na football bi nekk benn ah, team bu ñu war a play ah, dëgg la ay journaliste lañ waaye soo xoolee xarañ nañ trop dañ ñëwoon fii fekk ñu fi dóor ñu ñu fekki leen si décembre bu passé nii ah, ñu dóor leen you know dafa mel ni bon bi final la moo nekk so moo tax préparation bi you know yaaga nañ si play nañ test game si bëri mosuñ te ñàkk a test game yëpp dañ waaw lu am solo la because at bu jot dañ ko dee def mooy delloo njukkal ñi nga xamante ni def leen jaloore si réew mi fii Euh, te nag ëmpale wuñ ne nit ki boo liggéeyoo ba weer bi weer bi dee euh, di nga mën a feeku lu ko gars yi di waxee euh, so moo tax SJG as the main body ñu seetum li nga xamante ne mooy tas xibaar fii si réew mi ñu gis ne itteel la ak it nag wareef la sax la ñuy wax pour ñu delloo njukkal ñi nga xamante ne ni def nañ lu rëy si Gambian sports. Gambia ak Sénégal so Hadrami Sidibe Musuta meet Matarba in Banjul. It's an avenue for him to meet for the first time ñoom ñoo xam lu ñoo discuss SJJ bokk si andi nañ ko for the first time history let's say Guinea-Bissau FA president is coming for the Gambia for the first time dina mit Kaba Bajo musuta am loolu lu ci lu ci lu ci lu ci juddu kenn xamu ko mun naa am sax MOU between the Gambia and Guinea-Bissau in terms of whatever it is loolu tamit mun na cee am coach Aliou Cissé bu Sénégal mu ngi ñëw dina fekk fii ay naataangoom ñoom ñoom ñoom Matar Mbouch ak ñeneen dinañ fi nekk Henry bi nga xamante ne ni dëgëral diggante bi eh, mooy players si ex si ak Chiefs yi. game bi di wax ne ñu ñëw seetaan team bi ñu ngi play at the goal project eh, te gëm naa ne booy dinañ win jekkale luñ commencé woon Dakar eh, di wax ñëpp ne SG ji buñ sañoon ñëppee ñëw teewee award bi waaye nag dafa yàlla dafa def ne dafa nekk li nga xamante ni moom mooy based on invitation la waaye suñ sañoon nag mooy ñëpp teewee li nga xamante ne mooy bés bi te kontaan nañ si képp ki nga xamante ne ni bokk nga wala na li nga xamante ne mooy award bi mooy sponsor si